lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ñu ma rek kàddu googu àgg ci ñëpp rek ndax su ma tàmmee ci tàmbalee ci kilifa itam leen mën jeexal kon nañ ma nañ ma nangul kàddu googu rek asalaamu aleykum wa taala wa barakaatu di tàmbalee ci jéggal ci soxna yu tedd yi toogoon fële toogin bu rafet ànd ak yiw affaire bi bëgg a jaxasoo man euh, désordre désordre daf may perturbé moo tax ma ma ma xëtt protocole bi parce que gis naa ne xale yi wër nañ leen te ñemewuñu leen a tudd waaye comme mag buur la ma daal di jóg rek ne leen soxna yi may leen ma ngeen demee ne bañ defaraat affaire bi ñoom itam ñu ne ñokket dem teguñ ci baat yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla teralal lislaam rek a tax ngeen nangu loolu ndax awma ci yéen benn autorité maa ngi yéen a fi yem képp su ma jógee ñëw ngeen toog seen toogaay jekk yooyu ma jëli leen ci ngeen nangu lislaam rek a tax yal na leen lislaam fay kàddu gi ci topp mooy sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax ndax dafa mel ni man juumuma dafa mel ni juumuma Mouhamad lamin sama doom la dama koy wax sama jarbaat ndax wolof bu amee doom ju jurul juñ ko jural jarbaat la koy wax te jarbaat dafa foor jarbaat a gën a foor doom lu jiitu lislaam moo tax suñu maam yi sax ba ñu duggagul ci diine ji seen jarbaat moo leen di doon seen doom du leen doon ma koy wooyee sama jarbaat ba ñépp di ko ko di ko ko wooyee baat boobu dafa am lu mu tekki ci man damaa dem 2STV di fa def émission gannaaw bi ma jógee RTS yàlla rek moo dogal ma dem fa amul protocole ah dañ jékki-jékki rek woo ma ne ma est-ce que doo ñëw tàmbali ñu fi benn émission ma nangu parce que booba bëggoon naa li ma xam a kës néew fu ma koy bokkeek jullit ñi te jumtukaay boobu jumtukaayu tele benn gënu ko ci efficace ma tàmbali émission bi lu jiitu may tàmbali émission bi Lamine Dramé daana dem 2S parce que booba xaritam bii di Aliou Ndiaye yore émission bu mag bu ñuy tuddee grand rendez-vous léeg da ko ci daan woo waaye ma tàmbali émission bi ab diir ma woo ko ma ne ko lamin mu naa ah. ma ne ko mag ku dee mu dee moom ku dee dana dee ku deewul moom day dee te ndono mii ma yor wóoluwuma ci ñëpp ndax dëkk bi li fi sérieux bareetut moo tax damaa bëgg nga ñëw ñu dend ba man bu mu fi nekkatul nga nekk fi loolu moo dugal moo dugal Lamine Dara di Sen TV ma commencé émission bi ak moom muy xoromal rek léeg-léeg mu fuur a fuur ma ne ko eh dalal mu dal ñu dem ba weeru koor yu ñëw mu ne ma oustaz ma ne ko ah mu ne ma comme dafay am yeneen émission yu ñuy def ci koor gi di ko yaata damaa bëggoon nga ñaanal ma ñu may ma ma def beneen benn émission ci koor gi tudde ko al amin ma ne ko amul problème ma dem so seeti soxna si wax ko ko soxna si gëmewu ko ne ko dina dama dinaa ko wax El Hadj Ndiaye mu wax ko El Hadj Ndiaye El nangu oustaz Lamine commencé émission bi al amin balaa koor gee jeex El Hadj nangu ko ci man ne ko émission bii du émission bu ñuy def ci koor ko bàyyi da nga koy continuer d'ailleurs sax damay créer beneen chaîne tudd chaîne tudde ko Al Amine Alaaji Njaay ko baax la Alaaji Njaay ko jar jàppale la en tout cas man li ma xam ci moom mooy ñun may nañu jàmm ci émission yi ñuy def musu ñëw woo laaj ñu lu tax ngeen wax nangam xamul sax lu ñuy wax te boroom fulla la nag ndax njaayeen la xam nga njaayeen ñoom waaye daf ñoo doyloo moo tax léeg kenn woo ma ne ma oustaz émission bi am na solo lool waaye heure bi moo baaxul ma ne ko heure bi ngeen yelloo ndax yéen li ngeen fas yéene mooy seen dërëm du dem ci diine ji koo xam ne dërëm bu mu am ëppale na ko lislaam bi kooku émission bu mu am fu mu nekk baax da bu ñu kenn yàpp ñoom borom télé yi yar bi ñu yar yar ci diine donc ñu nekk ay sénégalais nekk jullit moo tax ñuy def émission diine waaye émission diine rapportewu leen tous parce que jullit yi duñ def seen xaalis ci diine ji loolu moo ma booleeg Lamine Dramé man ndekk jumuma <laughs> ñu dem tuuti rek nit ñëpp wax ma ne li nga def baax na ki nga jël baax na ngi jooy leen daalal ko